Gabon ayca Gabon lu tax ñuy dem Gabon xam nga ni Gabon ñi ngi waajal màggal Ila Touba. Mhm. te xam nga ni Serigne Touba Gabon bokk na ci dëkk yu gën yu mu yu mu yu mu jaar. ci mhm. ci ci ci yoonam nekk na dëkk bu am solo boo xam ne def na fa ay kéemtaane comme ni ñu koy waxee euh, dañuy Gabon parce que tamit 2017 bi euh, Coupe d'Afrique bi fa lay amee. nekk na mhm. fa tamit euh, loo xamante ni lu ñëpp di xaar rek Sénégal fas yéene ci participer dañuy dem Gabon rek bijou tamit ñu ngi xool le 27 août bi ñu génn amoon na élection yu xawoon am ay jixi jaaxa diggante Ali Bongo ak kii di Jamping nga xamante ni finalement victoire bi ñu ko jox Ali Bongo Ali Bongo moo moo amatul benn coow mais Ali Jean-Ping ba léegi mi ngi compté bien vrai que actuellement mi ngi France mi ngi France pour euh, def ay déclaration à distance di expliquer ni euh, moom tey ba tey mi bañul bañul euh, day contesté victoire kii di Ali Bongo Gabon parce que moom Gabon ñi ngi ñi fàttali position ci Afrique mi ngi situé Afrique centrale la nekk di entre Cameroun Guinée équatoriale moom tamit ancienne colonie française la comme mhm. Sénégal mhm. capitale bi di Libreville ak Port-Gentil bariwuñu nag seen ñoom seen bi ils 1 million 778 mille 282 euh, bariwuñu. bariwuñ kay population mën nañu ne sax. million million. ñun mat nañ leen 14 fois. oui. <laughs> Gabon de buñ ñu. a une forte communauté euh, di wax. voilà Gabon ñu nga fa voilà que dañuy seetaan euh, ba day gi dafay dafay am solo mbay mi it am na fa am na fa solo lool. Mhm. ci seen PIB sax dañu ñu ngi ni day yéeg euh, produit intérieur brut bi 6 pour cent ci diggante 2010 ak 2012 Gabon dëkk nekk na dëkk bu prospère ah. mhm. am na pétrole tamit euh, li ci li ñuul ci soble mooy seen élection bi ñu génnoon bu yàggul dara am ay coow amoon na sax ay ñi ci amoon ay gaañu gaañu ñenn mais loolu mën nañ jàpp ni léegi jàmm am na fa dëkk baa ngi dox. comme ni ñu ko waxee Ali Bongo moo ko yoraat ginnaaw avant Ali Bongo Omar Bongo moo fa nekkoon depuis seen indépendance 1960. gannaaw mooy papa ji mooy papa ji bi mu bi mu décédé ci la Ali Bongo jël doon ko xëccoog moom euh, finalement Ali Bongo moo gagné élection yi. Mhm. Euh, jaar jaaru Serigne Touba nekk daf na fa am na fay jaar jaar xam naa ci télévision Futur Média ci màggal gi nañ ñëw ak ay spécial ñu ñëw wax ñu bu baax euh, jaar jaaru Serigne Touba foofu ca ca Gabon di wax ni étape bu am solo la ci dundam. reportage yi moom commencé nañ ko ci euh, Touba borom Touba euh, ci lu jëm ci màggal gi du ñàkk comme ni nga ko waxee ñu wax ci jaar-jaaram Gabon. Mhm. Euh, mais Gabon comme ni nga ko waxee dëkk bu prospère la et que je pense que ñi fa dëkk dañ koy sentir ndax man amoon na ay étudiants Gabon yu ma xamoon en France comme mhm. Maud Oya bi par exemple ñoom il paraît que ñoom ñëpp dañuy am bourse. oui boo xamante je pense ay 1000 euros lañ leen di envoyé ñoom ñëpp par mhm. mois boo nekkee étudiant jóge Gabon wuñu nag xam chance boobu la dañuy investir bu baax seen man mii am naa chance bu fii Dakar bari fi sax ay étudiants euh, gabonais yu fi nekk bokk ay ñi nga même promotion ay gabonais ñoom tamit mais pareil seen amuñu problème bourse comme ñi koy dañuy étudiants leen di misé ci ñoom te tamit dëkk xam nga ne éducation la te booy misé ci ci eh, éducation bi dina porter ay fruits sûrement loolu dafa bokk sax ci seen politique parce que man amoon naa ay xarit ma doon wax ne ñoom seen président ci boppam mhm. moo bëggoon euh, étudiants yi di génn di dem di jàngi ji comme par mhm. exemple parce que dañu wóolu école sénégalaise mhm. mais ku ci pare da ngay ñibbisi waat ah, da ngay ñibbisi ñoom en fait looloo seen politique dañuy yónni seen si pour liggéeyal seen dëkk. la ñoom politique boobu la euh, Omar Bongo à son temps instauré woon xam naa doom ji ko moo ko utu. Mhm. moom tamit defe moom lay continuer politique boobu lay continuer. waaw wax nañ dëgg nag parce que un million d'habitants bu fekkente ne nit dañuy dem toog bu ah. yàggee dëkk bi kenn dootu fa nekk donc ils ont bien raison d'instaurer cette politique donc merci beaucoup.